xam ne ay sinab wane ay gàllaaj ay sinab yéeg ci ay guub moo rek déstabilisé man nekkuma genre mbër boobu te man doomu Pikine laa doomu Pikine laa du ma nelaw donc am na loo xamante ni Balla Gaye xam na ni Balla moom mu nga war a wutal yoon di nekk ci yoonam moom bu yàlla defee jàmm rek ci moom ak ci man dafay bàyyi lam bàyyi ma fi donc booy xool yoon di ko wutal yoon muy wut fu nooy naan day tourné Boy Niang bàyyi ko fi dem jëli gi rek yooyu parce que jàpp nga ni dafa nooy non non ñun duñ doxee noonu de waaw noo boo jàppee loolu yow def ni da war a defaru ci giri parce que ñun xam nañu lépp xam nga mi de làmb ñoo fi ne man lu ma wax fii balaa ngoon day dem géejewaay foofu tamit loo fa wax balaa ngoon dafay parce que dëkkuwaay bi parce que dëkkuwaay bi waaye si ñu ngi may jàng seera en direct merci pour ni dëkkuwaay bi soriwul te boo tegee réunion sax waxtaan dënk balaa muy fajat piin da koy yëg parce que ñun dañoo roof roo ñun ak ñoom ñoom tamit loolu lañ am fii donc nag booy toog ne non fi ma mbër bi fi mu toll ni baaxagul wala pareegul du ma def direct ci Boy Niang il faut ma jër gii di defaru soog a ñëwaat seede yàlla loolu duñ ko nangu ñun waa kër Boy Niang non non ko nangu forcé wul la nag pour ñu bëre ak ñun il faut waa kër Balla Gaye ñu xam loolu ne boo Niang force wul na dafa war a bëre ak Balla Gaye léegi-léegi Lamine bu ñu bërewul na dem bëre ak keneen ma kon ne sama carrière ma kon ne ak keneen mais le fait que Boy Niang toog di xaal Balla Gaye muy teg ay affaire naan kii laay bëre kër a teggin ma loolu amu fi de dangay dem am droit bëre ñi ngay bëreel man tamit damay am droit ne man tamit dootuma bëre ak yow damay bëre ñi ma war a bëreel mu jeex tàkk gaston nag li ma sekk ak man li nga xam daf ko yëkkati jox ma ko loolu sama dem nañ ci moom te ñun ak ñoom la nañ ci waxtaan ak moom li ñuy delloo li ñuy lu ñuy jox jox ñu beneen avance li jox leen avance loolu moo fi nekk no wiiri bi xam nga li fi ne buñ toogee ñu làmb rek nga gis Balla Gaye nu mu jógee ci Gris Bordeaux nu mu jógee ci Bombardier sama ko baag moom du yomb boo ñaam mbër bi entraîneur la loo ko mën a waxal mbër bu entraîné respecté làmb trop respecté làmb di entraîné mën a bëri mën a xeex yaa ngi dégg mun nga ma faral mun nga ma ñàkk faral nga wax lu la neex mais damaa gëm làmb fonk du ma ñëw làmb si meeku nga gis ne yaafus la damay bëree damay xeex donc adversaire bi mel noonu nag booy ñëw ci moom bu la neexee nga ne am na nu may ñëwee loolu moo fi nekk rek moo tax mii mafia beeg dilli mais ñun amuñu lu ñuy wax ak kenn ku nekk ci Balla Gaye wala ñuy jàpp yaa tëgg si combat ci suuf yaa wax combat bi suñu yoon newul ñoom ñun Gaston lañ waxal suñu père Gaston moom lañu waxal moo yëkkati xaalis jox ñu moom lañ signé contrat donc am loo xam ne moom lañ koy waxal waa kër Balla Gaye ne bu ñu bëggee Balla Gaye lu nooy wala comme Ahmed Aïdara fan yi moo nekk maire Guédiawaye mu woo ko fa muy jaay juuti wala dara foofu day loolu mën na yoon dama ne bu fekkee da nga bëgg lu bu fekkee dafay wut lu nooy Ahmed Aïdara fi mu toll nii mooy maire maa ko félicité sama grand na ko fa woo téye ko benn place muy jaay juuti muy dagg juuti dafa bëgg non non loolu amul dem ku xam làmb xam ni boo bëggee bàyyi fi booñaa dem giri mënoo ko teg ci palmarès giri 2015 da nga am victoire sabato moo ko dama expliqué rek grand bu baax la maa koy nuyu mënoo ko teg ci victoire mënoo ko teg ci palmarès mënoo ko teg ci performance parce que 2015 boobu man teg naa ci six combats am naa ci trois victoires donc mënoo ko teg foofu merci te tàngal ceeb la yëpp donc nag yow da nga koy teg nii rek non sama mbër ni ma ko gisee nii pareegu pour affronter boo Niang naa ko wutal benn combat en attendant mu defaru Boy Niang toog xaar non man dama toog xaar benn mbër ak ku mu ci mën a doon pour ñu xam loolu bu baax Balla Gaye dafay dem bëre Gris Bordeaux Boy Niang dafay bëre keneen te du ma dëppaat di bëre moom moom tamit bu mu dëpp di bëre man ku nekk na jël sa yoon ñu connaître yoon mu jeex tàkk loolu waaw te man boo ñaa maa ko wax te nekkul loo xamante ni dama génne nii di wax boo gisee ma woo ne xam ngeen ñi leen woo téléphone leen pour ngeen ñëw donc staff bi ñoo wax te loolu lañ wax loolu lañ teg ci taabal bi terewul ko mu bële keneen de am na ci droit mais ñu tamit am nañ droit ñu tamit xool keneen loolu moo fi nekk waaw loolu du ma ko mën a dëggal parce que man Père Gaston moom laa signal Père Gaston moom moo ma te Père Gaston mën na sëkk pour tëgg beneen combat bu mag sax bu romb Balla Gaye mën na ko sëkk macha allah comprendre nga donc moom laa waxal keneen ku ne ci ginnaaw wala ngay wax ci ginnaaw ngay def sa ruube ci ginnaaw loolu yaa sa affaire la yaa ngi dégg ñoom ba ñu génnee wax ma li ñu may wax yëpp wala ñu def li ñu waroon def waroon nañoo am grandeur buñ bëree Bombardier pare waroon nañu am grandeur ñoom it génn wax waaw parce que boo dalee ci kaw boo ñaa wax ko déstabiliser ko waxu lu ne mu daanu nga jubilé kontaan wax li ngay wax yow tamit ba nga ñëwee ci géew yi ñu daan la ngay soulager ci géew bi ngaa mën a génn wax de waaw wax ne nag man daan nañ ma jëri bu leer may soulager géew bi neen sama ndigg dafa métti damaa jël stade bi yëpp fecc ko riita mbale xëy na da sa ndigg day métti yow waroon nañ génn wax ko de ñoom ne ñoom tamit leeral quoi ñu laaj leen tamit ci booñaa li ngeen ko wax ñoom ñu leeral parce que moo tax ma xëcc la rek na fii yàlla rek moo fi ne kenn newu fi ku fi def da ngaa téye dara téewu ko suñu borom moo ko teg ci loxo ñëpp bu ñu waree bëre maa ngi moom dañuy bëre bu ñu warte bëre te Sénégal yëpp bëgg suñu combat te waruñoo bëre duñ bëre loolu mooy sama kàddu ci wax bu nekk Balla bu ñu waree bëre di leen bëre bu ñu warte bëre te Sénégal yëpp bëgg suñu combat te waruñoo parce que ñu bëre ñaar koy def man ak nu mu mënti demee su ma bëre woon ñu daan ma wala nu mu mënti demee su ma jëlee avance su jàmm signé ko damay pare rek bëri am nu mën doon ba surtout maa ma wan ni kooku maa ko mën yaaga wax ni du ma moroomam ci làmb yaaga ma ni lu ma def defu ko fi yaaga maa wax lu ne sànni ma xel lu nekk donc kooku nag soon bëree seen combat nga bëree mu jeexal suñu borom indi safaan moom mu bëree jeexal suñu borom indi safaan parce que ko def ñu ñaan ñi ba ku nekk da nga def da nga am victoire donc ñëw bëree moo war am amul sax waru am sax débat donc bu débat ñëwee rek ñun dañuy jël suñu responsabilité non làmb làmb amul combat yéen ma ne làmb amul kon maa yéen mën na de xamul da parce que ñaari mbër am na fu ñuy toll kenn ki day daan kenn ki taxaw loolu moo ne ci làmb da ngay daan dem defaraat sa carrière jax taxawaat moom mu daan mu ci dem defaru dem bëre ñeneen loolu fi ne lu mu mënti doon bu ñu bëree lu kenn ki day dem bëre ñeneen ki dem bëre ñeneen fi ne ci làmb parce que gis nañ fi combat bu ne te man ak sama combat Balla Gaye Boy Niang mënoo ko wax di tudd yéen ma de du combat bu ñuy négocier du combat bu ñuy yërmale du combat lu ñuy ñaanante dara ñaanuma ko mayuma waaw loolu la moom mooy bàyyi glace moom mag mi nga xam ne dangay ngay bëgg lu noo yow yaay dem bàyyi glace ñun ay xale ndaw lañu ñun la am fu ñu toll ni fu ñu toll naa business suñu de ñun fu ñu toll ni boo ñaa carrière fu mu toll ni nekkul business nekkul wut xaalis nekkul dajale ay combat wut lañu yóbbaale ñun tolluñ foofu de ñu dañoo toll ci def làmb le fait sax ñëpp mën nañ d'accord ne bu leen neexee de defaguñ dara ci làmb mais dañ toll ci def ci làmb parce que ay xale lañ te làmb dafa nekk ci kanam non non waxuñu loolu non waxuñu loolu Makan suma frère maa ngi koy nuyu bu baax waxuñu loolu seetaan na interview am tamit dem nañ fa staff bi moo tax man la bul jàpp ne boo ñaaree teg micro yi rek génn di wax staff bi dajaloon nañ woo Père Gaston dem seeti ko waaye ñu xamal ni ñu Balla Gaye dafa dem faj bu ñëwee wér day bëre yow mois de mai bu wér day bëre Gris Bordeaux juillet maanaam loolu day wax bu ñu wax la te mu nekk boo xam lax boo xam ne boo nekkee làmb rek yéen ñi dund ci làmb xam ne li nekkul wax bu cohérent dama naan la noo Balla dafa dem faju ji bu wéree di ngeen bëre mais bu wérul juré ngeen di bëre loolu mooy wax bu tegu waaye ñu xam ne nag am na leen lu ci nekk leneen lu ci nekk nag moo tax ñu jël suñu responsabilité te ñu am ci droit nag ak ku mu doon ñun dañoo am droit comme moom nu mu amee droit ne xëccal ma kii arrièreal këre ñun dañoo am droit ne ñun tamit duñu bëri ak moom na ñu jox beneen adversaire te loolu kenn mënu koo déesu ñun kenn mënu ne Boy ñaa amul droit wax loolu ah ah Boy ak koo nekk ci làmb mënoo wax ni amul droit wax loolu comme moom am na droit pour tànn adversaire am ne kii laay bëreel ak staffam ndax dañoo war a xool lu nooy ñun tamit dañu am droit ne ñun tamit duñ bëreet teg moom am nañ ci droit. merci boo boo boo déggee wax la foofu ma njëkkee waxtaan bi mooy ne dañoo ànd dem seeti promoteur xam nga waxtaan tamit koy déglante bu ñu répété di répété waat rek dañoo def délégation dem seeti promoteur bi te promoteur bi tamit lu muy doon doon suñu kilifa doon suñu papa mu wax ñu ay kàddu ba ñu signé contrat bi mu wax ay kàddu ne Balla Gaye day bëree Bombardier yow nga bëreeg tafaatin boo dem pare ngeen bëre ba pare sénégalais yi tamit xam ni Balla Gaye bu muy bëre bu muy jël booy Niang Boy Niang rek la am comme adversaire amul kenn ku fi njëkk jël Boy Niang avance am na ku ko njëkk a signé contrat bu fekkoon ba ñuy signé Gaston production muy suñu papa Gaston daf ñu xamal ni bu combat bi jeexee Balla war naa ko taxawal yeneen ñaari combat mais day bëre Gris soogu bëre yow ñu négocier tag ci boobaa duñu wax de parce que ñoo ko wax nangu ko déedéet déedéet man du ma doxee noonu man bokk naa ci mbër yi nga xam ne xaw ma keneen de mais man am te sama combat Pape Thialis xam na keneen xam ne sama combat yëpp sama avocat dafay lire contrat mais contrat li ci nekk mooy date moo ci nekku te date bi du newu ci parce que ba ñu waxee promoteur bi ne ko date bi daf ñu xamal ni mënoo am date parce que kii amagul date Thialis kii la tëgg te loolu tamit dëgg la boobu Thialis jàppagul date mi ngi nekk ci problème combat am donc moom bu jàppee date Thialis jàppaat day puusaat donc mënu jàpp date tant que caas jàpp nee na ma bu leen caas joxoon dat léegi gannaaw suba wax la dat bi ngay bëreeg Balla donc dafa am loo xamante ni contrat lañ koy signé dëgg la mais dafa am loo xamante ni ci parole la da nga may wax ma wax la muy contrat moral boo xamante ni dañ ko sëkk ak Père Gaston Balla Gaye tamit ba mu bëree ba mu ba taxaw amul benn combat bu nekk ci moom donc Balla bu paree ci Bombardier boo ñaa paree ci Tapha Tine dañoo war a bëree loolu la loolu la wax loolu la contrat bi wax loolu la keneen wax léegi bu ci yeneen amee Père kon ku nekk day jël sa responsabilité Balla Gaye na droit jël ne lii laay def ak lii mais tamit nañu nangul ne Boy Niang moom it am na droit moom ak ñu mu àndal ne ak Balla Gaye damay bëri ak keneen dañ ma beneen combat bu Gaston jox na ma avance na ma jox beneen combat mu bëri mais bëriwuma ak kenn ma delloo avance loolu yeggul fa dama ne loolu waxtaanu staff bi la ak père Gaston le fait que dañ koy delloo wala le fait que dañuy loolu ñu nag moom la mais suñu diggante ak Balla Gaye xamal ni moom bu demee ba jël Gris Bordeaux pour adversaire tànn ko pour bëreek moom ñu tamit dañuy am sañ-sañu dootuñu bëre ak Balla duñ toog di ko xaar dootuñu bëri ak moom am nañ ci droit Lamine loolu kenn mënu ko dàq suñu non non non moo tax man la loolu waxtaan la instant bi dañuy dem toog a Père Gaston waxtaan ak suñu papa la trop jox ko cër Iba daf ñuy ni daf ñuy jox beneen beneen avance ngeen bëre ko mooy avance la jox dama lay jox beneen mbër ngeen bëre ko wala mun la amul benn problème ma sama xaalis ñu suñu père mais côté boobu du am problème bi ñu am problème mooy ñu nag Balla moo tax ñu bëgg leen ko xamal parce que dañ kii affaire yi moom amee ba léegi dafa mel ne waa kër Boy Niang dañ sopp di saraxu Balla sax pour bëre affaire bi dafa xam commencé xam na wiiri rond point xam nga mel ni ñun dañu yor benn pot di yarwaan pour bëre déedéet Boy Niang bu kenn du ko boole ak Balla Gaye Boy Niang bu ñafe woon ci laamu du bëre ak Tapha Tine Boy Niang bu ñafe woon ci am du bëre ak Lac de Guiers su fekkoon dama ñëw sama morom yëpp daan ma damay toog xaar mais am na nit tamit àdduna fu mu toll nit lu mu mérito foo ñu jox ko parce que ñëpp mi leen làmb lañ nekk làmb océan yi dafa war a jeex ñoom Tyson dañu dem ñoom Balla daf ñëw ñoom Balla dañuy dem yeneen ñun dañuy ñëw keneen day ñëw làmb boo ko fexee mu dox yow la yaw la yow la te saa boo xeexee ñu indi la say daal dana lay nax du yow Balla li ko gars yi affaire du moom de da nekk ak ay moroom say moroom ci làmb ñu war laa mën a daan nga war a loolu mooy làmb waxuma la waru mën a daan gars de mën a daan ko que làmb moo ci donc booy bi bu ñafee ba yegg si fi mu war nga ne sa rakk imposé ko mu duma ko daan ko daan waa géej waaye su ma fi mën nañ douze daan dama am mérite pour bëree ak ku mu mënti doon waxam na moom de ku mu mënti doon ci làmb donc donc sama carrière ñoom dañ ciy impliqué te yoon waaw actuellement loolu la ñu doon léegi nag moo tax ma moo tax moo tax moo fi nekk moo fi nekk dañuy taxaw bëre ci moment bi ñu war a bëree bu ñu bëree bu dafay dem xool leen man ma def xool leen mais waa kër Balla Gaye ñu xam ma wax leen ko ñu dégg bu ñu jàpp ne mukk boo ñaa toog di xaar Balla Gaye bu ñu jàpp ne mukk ñoom ñoo yor monopole bi di diriger di wax ne kii laay bëre après kii après kii ñun duñu daan mbër yooyu ay xale lañ waaye arène nationale bi dañ koy def nu mu war a def bu ñu bëree ni mbooloo day topp suñu ginnaaw te duñ caaxaane combat duñ nekk benn mbër ñu wax ne yow ay eh, lii laa lay def fee ngay toog di ma xaar su ma kenn ku ñuy def loolu dañu war a bëre contrat moo ñu see ñu bëre bu ñu war a nga xool leneen am nga xool leneen suñu combat képp koy xaar ak amateur war nga koy xaar nga xam ne combat bi du mënta nekk mënatul nekk ku ne da nga dem seet sa yoon parce que am na loo xamante ni bu ñu ko ci dugalee néewal doole taman kenn du ma néewal doole Sénégal laa de Pikine laa dëkk borom mbokk laa kenn du ma néewal doole ak fu mu mënti dem parce que amateur yi seen bët di xool te Boy Niang boobu yëpp dafa tokk ci dugam noppi rek ñu koy néewal doole ko sànni ay xeer di ko wax day wiri rond point bu day def lii bu daanu yooyu yëpp mën naa ñàkk muy képp ku ànd ak Balla Gaye loolu yëpp dafa mënoon a ñàkk parce que laa moonu boole te yow ay nawle lañ te Balla fu mu amee safaan kenn du ma fa jiitu bi Père Gaston waxee loolu seen staff lan lañ wax ci loolu. Père Père suñu staff lu ñu wax ak moom wax nañ ko ko. mooy lan parce que man déglu rek li ñu wax ak moom wax nañ ko ko moom parce que ci wax bi war nañu ne waxtaan bi jeexul waaye ñun làmb dafa xat am na looy waxtaan ci làmb léegi dama koy yëg làmb dafa xat. Mm. am na loo xam ne duñu bàyyi ba mun a xës ba ñu dem régulation ba pare ne li moo ne après ngay wax c'est trop tard mais ñëpp xam ba ëllëg bu ñu gisee boo ñaa jël ay matukaayam topp ko bu mu sët dem ci fu mu ci mënti dem ak fu ñu ma ci woo. ñu xam ne Boy Niang dafa ne ci yoonam parce que képp koo xamante yéen ñi di su naa si làmb rek képp koo xamante ne defu ci gauche droite da ngay xam ni Balla balaa muy bëre kenn Boy Niang la war a bëreer dañuy waxtaan dëgg rek dëgg rek moo neex waxuma nga faral ma waxu nga faral Balla yow waxal làmb rek teg waxuma laak nag man ma ñëw ñaax par avertissement yow nga ñëw daanu jël wu leer nga dem seen ñun la da nga daanu donc yaa ngi ma doon bañ mais da ngaa ñëw def pire xam dafa am combat yoo xamante ne suñu borom moo ko teg boo xoolee combat bu mu commencé ba léegi saa bu ñu boo ñaa Balla Gaye foo bëggee teg tànk rek suñu boom da parce que laam moo tëddee noonu te laam dafa lu mu ànd am na loo xam mbaa xam bu dafa imposé wu moom ba mu ñëwee ci war a bëree benn grand ne fu di polémique ko jox sansam mu bëree ñoom daan leen loolu lay làmb mais bu ñu ñëwee combat bi taxaw nga ni non boo ñaa mi bu daanee duñ bëree moom dëgg combat bi suñu borom ne déedéet noonu nga ñëw ne boo ñaaw daan nañ ko léegi day wiri rond point suñu borom ne déedéet yow yaay gën a ñaaw li day defet non man amul dindi tuuma xam nga amul dindi tuuma dama nekk sama carrière te boo xoolee mu nga ni tafaati mu nañ li mun nga ni la dëgër mais kenn daanu ma de te ñoom tamit amul kenn ku ma ci jàppul de kuñ jàppante wu roofoo nga war mu mën a daan am na de waa de ma ñëw ma ñëw waa ma ñëw ma ñëw bàyyi bàll tafaati roofoo na ñetti yoon ci combat bi jàppoo wala mu mën a daan buñ jàppante koo mënta daan mooy koy daw mënoo ko jàpp mais koo jàppanteel ñetti yoon ci combat war nga ko mën a daan mais daanu ñu ma de te xeex nañu xeex ak moom sax war tax sama loxo li ma dal dal la déguèr sama combat moom bëree nañu xeex nañu yóbbu naa ko ardo donc amul kenn ku ma ci war a mën a daan mais ñu ma donc nekk ma mauvais perdant nekk ma koo xamante ni dama perdre ci manière boo xamante ni bëréewu ma wala koo xamante ni dama daw combat ba daan ma wala dañ ma jàpp daan ma mais war nañ ma mën a daan sax ci làmb waaye dama la bëgg a wan ni jom ak fula ak fayda laa wane ci ñaari kombaa yëpp ba mu jeexee ni mu jeexee ma toog jàpp sama ruk nekk suma entraînement non comme li am na bari ñoo xam ne ba combat bi jeexee dañu woon boo ñaar day génn vengé wu wala dafay wax ne ah yéen daan leen leen non non duñ duñ doxee noonu parce que yàlla mooy lépp dañoo nekk suñu rukk mais ñun dañ dem arène nationale bëre fa suñu combat xeex bëre ba suñu loxo gaañu ñu nëbbu ko te loolu ñu ci ñu ciy jégalu suñu ay supporters ñi nga xamante ni ñu bari kaas nañ ni ba mu gaañoo dafa war a wane ne gaañoom mais di wax ne sama deret moo toll foofu sama yaram moo toll foofu moo tax mënu ma wane loolu mu bëre ñaax combat bi maa nag sama mbokk dem ñibbi amul benn problème moom mu ñëw bëri ci laam ji daanu daanu avec la manière képp ku nekk amateur rek ba nga xam ne Balla Gaye dafa daanu yaa ngi dégg nekkul lu ñu koy yéene sax parce que làmb la waaye suñu borom rek moo mën a atte loolu duñu am daal luñ ciy wax ñun dañuy toog suñu rukk dafa am ku ñu sekkal contrat si ñu ñu bu ñu toogee fii nii sax di wax turu Balla Gaye parce que contrat moo ñu sëkk ci noonu dafay am droit dañu waruñu wax ci moom ma dañu war a wax ci moom parce que contrat bi Omar Sakho da cee nekk ak man sama tur ñu xaatim ko Gaston Production xaatim ko donc damay am pour adressé ko directement li ma koy wax wax ko wax ko ñu mu àndal pour ñu xam loolu wan ni Boy Niang a bëri moom mu xool leneen suñu combat bu nekk loo xam ne dañ koy def croix rouge mu jeex taag ku nekk xool leneen parce que nekkul combat boo xam ne bu ñuy forcé wala waa kër Boña pot di yorwaan pour bëre Balla Gaye loolu amul fii